يا ربنا إن الورى تدره لأوليائك معا ليصفعوا يا ربنا إن الورى تدره لأوليائك من ليصفعوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكلنا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكلنا asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah bokk jullit di bokk taalibe yi bokk yi lool waaye bokk yi ni déglu bu ngeen gisee jataay bu sel bu barkel bii ñu toog ci barab bu sel bu barkel bii atub jàmbaar muy kan sëriñ ñaan Jóob yàlla na ko yàlla fayal muy lan bisub cant bisub ñaan bis boobu nag lu jàpp ko kañ la treize janvier lu ko amal ci ndigalu sëriñ Tuuba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fa yàggaloon Mbacké te wér ak ci kilifteefu sëriñ Moustapha Mbacké moom Cheikh Sidi Mokhtar jëwriñ sëñ Baara Mbacké yàlla na yàgg lool balay si te wér ñu ne ji seen taalibe bi góor yàlla gi muy kan Cheikh Rahima Fall lu gën ko xam ci sëñ Cheikh Fall Diop waaye ko min ci sëñ Lamp tey mu toog a jotaay maamam ja sëriñ ñaan Diop kon bis boobu daal ci leen dëgmal fas yéene woote woote ku ci ak aw turam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara bu ngeen gisee jotaay bi rek xam na ñoo ngi fii ci ëttub jàmbaari sëriñ Tuubaa di sëriñ ñaan Diop ak Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ci ginnaaw xalifaam bu tedd bii di sëriñ làmp Diop ñuy ñaan suñ borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ñu yëkkati sunuy kàddu itam ci turu daayira bi nga xam ne moo lëkkale mboolem sëti sëriñ ñaan yi ci njiital sëriñ Cheikh Diop may ci bis bii nga xam ne amuñu lu dul moom muy bisub jàmbaar ja sëriñ ñaan Diop ren ji mu war a doon euh, la 13 janvier fii ci Touba kër sëriñ ñaan waaye daayira bi itam baaxoo ci jamono bu nekk buñ ne suba la màggal gi conférence boo xam ne dañ di ci fàttaliku dunduk sëriñ ñaan nga waaye di ci amal ay waxtaan yoo xam ne waxtaan yi tem eh, diine la yoo xam ne mboolem mbokk yi fi ñëw danañ ci mën a jël bind ngir yóbbaloo ko bis boobu yi lañ leen di fàttali ren jii nag mu war a doon le 12 janvier incha allah le 12 janvier mooy conférence bi ñu leen koy fàttali bu baax a baax fas ko yéenee ànd ak njabootuk sëriñ ñaan Jóob gépp waaye di ci woo itam njaboot gi nga xam ne dañoo jël bis bi dara jaale leen ko muy sëriñ Abdul Karim moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara te sëriñ Cheikh Baara Karim nekk ci bopp ba ñu ngi koy woo ci bis boobu di ko fàttali ak mboolem njaboot gi nga xam ne dañoo aju ci kër sëriñ Abdul Karim Baara waaye bu ñu waxee bisub sëriñ ñaani itam mboolem njabootuk Cheikh Mouhamadou Lamine Baara rawatina daayira bi nga xam ne mooy daayira sëti sëñ Baara yi ñoom itam ñu yàgg a ñoom bis bi ñu ngi leen ci woo di leen ci fàttali kon daal bis bi bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ren ji itam tam tànn nañ tem boo xam ne tem bu am solo la mooy al qiyamul al qiyamul aabira wa atharuha fi tirabil nga xam ne jéggaane gi nga xam ne dañ koy jéggaane ay jikko ci occidentaux yi ak yàq gi nga xam ne mën na koo yàq suñuy jikko loolu lañ bëgg nafar ngir bokk yi mën ko yóbbuloo tànn itam borom xam-xam muy Serigne Fallou Boussa Hassan ngir mu war a def conférence bi ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñ kenn wuñ fenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah ma yëkkat sama kàddu ci turu Serigne Xaarim Diop mi nga xam ne moo jiite daaira Serigne Ñaan Diop ginnaaw bu ñu feddalee sunu njëbbal ak sunu taalibe bi ci kër sëriñ ñaan ñi ngi woo mbooleem taalibe yi ñu àndaloon di liggéeyal ci kër sëriñ ñaan ñu waajal bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom te mooy màggalu sëriñ ñaan Diop. ñi ngi koy yëgal nag mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi rawatina biir kër sëriñ Baara rawatina nag fédération bi di Sahadatul Abrar nga xamante ni moo lëkkale mbooleem daayira yi Cheikh Mouhamadou Lamine Baara yi ñi ngi leen ciy woo waaye nag ñi ciy jiital waa kër sëriñ Abdou Karim ñi nga xamante ni bii ñooy ñun te ñoom di ci teg waa kër sëñ xaadim du Baara waaye di ci teg waa kër sëñ Abdul sëñ Abdul Asis ci njiital sëriñ xaadim ma nga xam ne mooy kilifa ga di woo waa Mbàkke Bari ak waa Aliye ñoom it ci liggéey bi nga xam ne daañ ci ñëw daañ ci teew daañ ci jàpp ñu ngi leen ci woo mbooleem dayre yi nga xam ne daal am lente naa ak kër sa ñaan nañ xam ne kër sa ñaan bis bii lañ am te bis bi jub si na te népp noo xamante ni bi jàpp nañ ci gis nañ ko di leen ñaanal ngeen ñëw ak jàmm dellu ak jàmm di ñaanal kilifa gi mu yàgg fi te wér maa ngi soññ bokki diaspora bi yëpp Euh, ci ndigalal itim samay jëwrin samay nijaay ni ma koy waxee toujours muy Serigne euh, Ahmed Diop ak euh, Serigne Sayer Gueye ak Serigne Ñaan Diop waaye damay wax Serigne Ñaan Diop ne Serigne Ñaan Diop ndax Serigne Ñaan Diop Baye Mbaye Diop moom mooy te euh, euh, trésorier bi moo yor wàll yëpp man lantinoor rek laa ci ak euh, Serigne nu mu te Serigne ñaan meneen moom it mu Serigne ñaan maam Moustapha dama bëgg mu leer ci bopp nit ñi maa ngi ñu ngi sox soññu ñëpp daal ci bis bi ni ki ni ngeen ci daan taxawe taxawee xam ne ki ñuy liggéeyal moom mën na léppam man na lebam ni ma ko daan waxee te amuñu it lu may lu may lu may moom kon ñu ngi soññaan ñëpp di soññ suñu bopp di wax euh, mbooloo bi asalaamaaleykum wa rahmatullah yàlla na yóbbu ci yàlla yàlla yóbbu ci bis ba euh, ñu ñu ñu amee ko ñu ko bëggee rek barki borom Touba. asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu àq ñëpp di ñaanal euh, sëriñ bi yàlla yàggal ko fi di ñaanal ñëpp. ñuy wax nag ci kàddu soxna Fatima du njaay soxna si nee na moo cant sant soxna yëpp ci seen taxawaay di leen soññi it ren ñu taxaw di ko tàmbalee ci ki nga xamante ne nii moo ne ca bopp ba eh, jiite fédération yu daayira yu waa kër Serigne Baara yi soxna Waalo Mbàkke ak bépp daayira boo xamante ne nii yaa ngi ci diggante guy mind ak Serigne Ñaan soxna si nee na moo ngi soññ daayira bi nga xamante ne nii ñoo nekk paaleen ca bopp ba ka ca nekk di soxna Gagne Siry Diaw ci seen taxawaay ci lu jiitu bés bi mi leen di sant te di leen soññi soxna si soxna si nee na ngi soññi waa dëkk bi soxna yi dëkk bi tey sàkku seen teewaay ak seen taxawaay ca neen ko daan defee aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh Ibrahima Fall Diop Serigne Lamp Diop euh, ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké xalif général di murid ñuy ñaan mu yàgg fi lool te wér waaye ci kilifteenu Serigne Moustapha Mbacké jëwriñu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Serigne Lamp Diop xalifab Serigne Ñaan jóob mooy ànd ak mbooleem njabootuk Serigne Ñaan Diop gi yëpp góor ak jigéen ànd ak it njabootuk Serigne mustafa jóob gi yëpp ci turu. sëriñ Abdou Aziz Diop ñaani mi nga xam ne moo ca mag di woote bisub sëriñ ñaan Diop mi nga xam ne moom la ñuy amal le cent janvier deux mille vingt trois le deux mille vingt quatre te muy juróom-ñett fukkeel ak ñaar ci édition euh, bis boobu nag sëriñ bi mu ngi koy woote di ci woo umatul islami bi yëpp ak fu ñu mën a nekk di ci woo njabootuk boroom Touba gi yëpp. di góor ñi ak jigéen ñi waaye di ci woo mbooleem seexi borom Touba yëpp di ci woo it njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mii nga xam ne borom Touba bi mu defalee Serigne ñaan la mu ko defal Serigne Baara daa sàkku ci moom mu boole kook moom Serigne Touba boole leen lépp mujj di Cheikh Mouhamadou Amine kon njaboot googu yëpp Serigne làmp mi ngi leen ci woo ànd ak njabootuk Serigne ñaan gi waaye di ci woo njabootuk Serigne Baara gi nga xam ne ñooy njabootuk Serigne ñaan te Serigne Abdul Karim nekk ca bopp ba bu ñu ko tuddee dana mën a yóbbaale mbooleem ay doomam yam ko séqal ak i rakkam di ci woo it taalibe yi yépp ak fu ñu mën a ne ci réew mi ak ci bitim réew moo xam ku nekk kajoor la njaloor mbisiis kër gumba cekkeen ndangura ak la leen wër yëpp sëñ baa ngi leen ciy woo sëriñ bi it mi ngi ciy woo bokki kër njoogu di ci woo bokki daaru nahim waande di ci woo jooxaar fetto di ci woo daaru jóob kub-kub ak mbooleem li kër sa ñaan ak li ko wër yépp sëñ baa ngi leen ciy woo di woo taalibe yi ak fu ñu mën a nekk ci Tuubaa yi ak la ko wër moo xam bokki baylaa la di ci woo it réew mi yëpp moo xam ñi féete sowwu la Dakar ak mbooleem reson yi ci senegal yëpp fu fi waaye nekk sëñ bi mi ngi lay woo ci bis bi di ci woo bokki siin ak Saalum ak fépp fu taalibe mën a nekk sëriñ bi mi ngi la ciy woo fépp fu mbokk mën a nekk sëriñ bi mu ngi la ciy woo waaye nag di jiital ci woote boobu ahlul quraan daaray alquraanul karim yi nga xam ne e, ñoom ñooy aju ci kër gi ci sëriñ xaadim Diop ak mbooleem daara yi nga xam ne aju ci kër gi sëriñ bi mu ngi leen ciy woo ci njàngum alxuraan yi di di leen ñaan it ñu tàmbali ko ba ba ñu àgg ca bis ba te lim bu ci waay am it mu mën koo joxe jox ko sëriñ xaadim mu jotali ko. di ci woo it njabootu xasida gépp waa kër baay Matar Mbay ak Serigne Dangura Serigne Cheikh booy ak ñañ àndal léggéey boobu yëpp ak mbooleem ku fi yëkkati xasida ak kër goo koy mën a yëkkati ci bis bi rek sëñ bi mu ngi la koy soññ te di la ko fàttali di soññ it ñi nga xam ne ñoo yori kurus di def lu luñ mën a def rek ca kurus yi ci lu baax ndax bis bi bisub ñaan la bisub alxuraan la bisub xasida la bisub salaatu ala nabi la ak ya ci aju kon sëriñ bi mi ngi woo ñëpp te di ci ñëpp te kenn ku nekk ci ñun jiital loola bu baax a baax mu mel ne it euh, bu ñu demee ba ca tàkkusaan ga sëriñ bi mu ngi sàkku ci njaboot gi yëpp ni ñuy teewee ñoom ñëpp kenn ku ci ne di dundal bis bi bu demee ba ca tàkkusaan ga mi ngi soññi ñëpp kenn ku nekk ci ñoom ñu mën a daje mu mën a amal ay waxtaan yoo nga xam ne day jëm ci bokk gi jëm ci lin bokk li nu yàlla boole kon loolu sëñ mu ngi koy soññ kër yëpp kenn ku ci nekk boo jógee fii nga yóbbaale ko te bu bis baa ñu fas yéenee dajee ci fi moom ci buñ jullee takkusaan ba sëlmal kon leneen li ci des it muy màggalu kub-kub it ñu ngi koy soññewaale ci turu sëriñ bi kub-kub sëriñ Moustapha moo koy def buñ ne juróomi fan a des ci màggalu kër sa ñaan muy la huit bi moom itam sëñ baa ngi koy soññee di ko soññ ñëpp ah, mu mel ne eh, kon sëriñ bi bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn képp kuy mbokk wala ngay wóllëre wala ngay dëkkandoo wala ngay am di jàmm wala sax nga sopp sëriñ ñaan rek te dégg ko wala nga xam ko sëriñ bi mi ngi lay woo ci bis bi tey ñaan ànd kook yow di ñaan yit ñu dajee ca ngërëmul sëriñ ñaan mi ñu koy defal te suñu borom nangu lépp di ñaan yit képp koo xam ne teew nga ci wala nga am yéeney teew ci wala nga teewal ci suñu borom faj say aajoy biir ak bitti wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërë ngeen jëf mbokk jullit yi mbokk taalibe yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu kañ lay doon le 13 fa lay doon ci a bii nga xam ni ëttub jàmbaar lislaam la mu di sëñ ñaan yal na ko yàlla fayal sëñ làmp jóob na woo na ñëpp bawul kenn bawul fenn bawul ñenn di woo nag mboolem cheikh yoonu murid bi nga xam ni seen maam yi ñoo nag ci sëñ Tuubaa Cheikhul Xadim Cheikhuna Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaye di koy gën a dëkkandoo ak daayira yi soppe yi am na jàmm yi suñ lamp daal woote na nee daal bis lam le douze nag bu ne suba ci la doon conférence bi kan nag ku tuddee jàmbaar ja Cheikh Karim Mbacké moom Serigne Bara ci njiitu ab xalifaam Serigne Bara Karim ak ñi àndal ñëpp teewee ko bis bu ñu xëyee jàngal xuraan jàngal xasaayit di la terees berne ba digg ba cëg tàkkusaan Serigne ba woote ñëpp ca baas ba waxtaan ak ñoom. tàggatoo ñoom ñaanal leen nu waajal déwal sëriñ am ku ko wateel ni alxuraan ni xasida ndax ku tudd jànkat yi sa xelim ko ñaan yóbbu njabootu Baye Makhtar Mbaye sëriñ Dangoro yàlla na yàlla yokk leeram ak mbooleem ñi nga xam ne aju ci kër gi di yëkkati kalimatullahi ak yëkkati xasida suñu làmp daa woote na woote fépp bawul kenn bawul fenn bawul ñenn di ñaan ci yàlla ak yonente bi jàmbaar jooju nga xam ne fa tara kalaw day ñaan ci suñ Bamba ba yàlla ko mu sa ñaan ku fi ñëw kon saajo faju wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu rajawtu billahi nalante lala fi sirri wal jahri wal muxtaaru muxtaaru risqun wa rahmatun fi kum wal barakatum nasrun minna layma yuxjilna mutaaru rizqun wa rahmatun fi kum wal barakatum nasrun minna layma yuxjilna mutaaru wa xalilun wa habib limoniyan li an tabib biyu e, bu ne la beeb yàlla boo xëyee da la xamee yaa xëy daa si di nu la min xëyri rabbi ansala liya daa xu du nu la من الباقى والخدام على